réewub Sénégal yeewu ci ab tiis ginnaaw ay soldaar yu daanu ca Casamance ci ab mine boo xamante ne dafa daal di kalaate naka noone kenn ca ñoom bokk ca diwaan bu Ndar Jéri Jàlloo askanam ginnaaw bi nga xamante ne jot nañu xibaar bi nañu ko dundee métti yaayam di fàttaliku lamu mu doonoon ci moom tey mu di wéttalam waaye doon ku ko déggal taxawu ko ba lépp loo xamante ni moom moo di soxlaam te di soxla kër gi mu gàll ko ci ndoddam di am métit doom du ma yërëm doom joo xam ne bu la am amatuma coono daraan jàng ba wàcc samedi ak dimanche ba di dem yi ñëw di ma jox ba nii mu tukkee ñu jëlee ko armée le 27 pile mu yónnee ma sama dund loolu la may jëkk wax yaay su ma yónnee di sama sama papa ma pare nga soog a jël doom ji am sama yërmande mi ngi may xool di ma nemmeeku dama moomat mun ma ko sax wax loolu moo ma jooloo nii dafa am lu ma tracé ak moom ba pare waaye yàlla dogalam bu fekkee rek xolu xolu waajur dana rek ma xam ni kon dugg na àjjana ndax doom ji may yërëm la doom ju may yërëm ñi may ànd sama dëkkaat sama xarit ñi xam nañ ci dara yàlla nag mooy indi ñëw ay mbiram dama ci bàyyi ci loxo yàlla rek waaw. Nah. lan ngay mujj fàttaliku si moom tey. mu mujj fàttaliku si moom daal ba fan yi paas daal woo na ma ni ma lan nga lan nga bëgg ma ne ko ah déedéet kam yaa ngi ci yoon bàyyi ba nga ñëw rek mun ma waxal loo bëgg ndax dama la bëgg liggéey dal kër gi man ko déedéet xaaral ba nga jot xaalis mun ma waxal sama papa na tracé plan bi ndax bëggatuma kam nawet nga néeg bi di seen bëggatuma ko ma ne ko waa bàyyi ba nga ñëw rakkami rakkam yi di jàng nii du ñu am bëri mu ngi fay seen jàng amul ku ci ne ku mu bu yónni man bu mu jëkkee liggéey portable la mu jëkk jëndal ni ma di sobat naa ma portable bi nga am baaxul xale bi daal ni ma la ko waxee daal dafa am sama yërmande dafa am sama yërmande bu fekkee may togg sax am jàmm day ñëw dëbb xale yi di kare lu yee la may defal yenn saa yi ma amee mbaaju tin wala dama koy nëbb pour mu bañ ko fóot dafa am sama yërmande dafa ma ko nag rek weesu nag yàlla nañ ñëw ay mbiram dama kay bàyyi su loxo borom rek. bàyyi na soxna am wallaahi soxna am ñu noonu toog. waaw mu ngi noonu toog. bàyyi na ay doom. mu ko takkee yàggul. <clears throat> doom ju ma yërëm daal sax naa daal doom ju ma yërëm la. weneen wàllu ba ki nga xamante ni moom moo di way juróom wu góor yëkkati kàddu daal di koy jafe la nga xamante ni fàttaliku na ko ci doomam ji di Jéri Jàllo moom moo di ku ko yërëm waaye tamit koo xamante ne daf ko teggil lépp ci ay coono gàddu lépp loo xamante ni moom moo di doxinu kër gi. boo foog ndax di weesu na foofu boo ko sama doom la man gërëm naa ko sant naa ndax lu nekk defal na ma ko kër gi moo ko yore. loolu day day yàqu day yàq liggéey ba noonu lay jël noonu lay jël ci écran bi dala dala dala dala dina baax moo yor kër gi jël ceeb moo jël dëwlin loolu ay rakam duñu soxla mu jox ko ay magam duñu soxla koñ ku soxla mu jox la jox la man dem na ma daal ma sama doom maa ko jur maa koy gërëm di ko di ko ñaan yàlla loolu laa am lu ma lay wax jeexat loo gën a fàttaliku ci moom tey ginnaaw taxaw boobu mu la doon taxaw nit ku baax la woon koñ bi gërëm nañ ko ah, ah, man de xam man xam naa am na maa man am naa na sama dom. sama doom xam ne ñàkk naa ko mais daal maa ngi sant nag ko bu baax gërëm ko waaw loolu daal li ma li gàttal loolu am lu may wax si lu gàttal ko waaw man lu wax xam naa daal man affaire bi métti na ma mu mosu daal donc lii fa nag bàyyi si loxo yàlla yàlla bi ko bi ko bi ko indi woon jël na ko yóbbu damay damay damay sant si loolu sant sunu borom sant ka man de xam naa nag am naa naqar bu ma métti métti na ma trop parce que kanam yàlla Euh, ndax mbir mi yomboon na lu mu bëggoon la yéen ko ci puus. moom gëm moom la gëmoon di ko bëggoon si xolam moo tax moom wane na ko sax ndax chef am yëpp chef yi nu ko coiffé téye téye ko chef yi nu ko coiffé. taxaw ko taxaw ko ir ko. moom daal lu ma li gàttal daal sama wax xam sama wax bariwul moo tax ma ne lu xam naa daal ay ay chefam ko man gërëm ko. ay mokkum gërëmoon ko sant naa ko bu baax nag sant naa ko bu baax ndax lu lu nekk daal loolu la bu ñëwee lu lu nekk lu ma sama lay toog lu mu xalaat ñu papa lu bëgg mu ne ma ne ah, mu dem indi bu su ma mu ne mu ñëw toog sama wet loo bëgg ma defal la lu am lu la sant ba sant rek kon ni ci tamit lu mu daggal ngir dugg la ah, ndax mhm. na ndax la euh, euh, zogon la def xam naa passion armée bi moo ko may mu mu quitté affaire boobu quoi pour mu quitté affaire boobu pour pour dem dans l' ndax moom bi mu bi mu admis fii sax bu am ne bi mu bango da ko nu da ko nu jubilé jubilé da ko nu jubilé xam ne kii passion am la man man tam ma bourse ko si ñu ko ne ko góorgóorlu dem après daal daal sant yàlla rek sant yàlla bu baax sant sant sant suñu borom sant bu baax. sant bu baax wane na ginnaaw bàyyi fi ay waajuram bàyyi fi soxnaam bàyyi fi dëkkaale yi fàttaliku bi gën a rëy tey ci moom lan la. li fàttaliku si moom. kaw dana ma tiis lu muy tiis la ndax actuellement ba tey mi sama kanam mun mun mun mun mun jóg sama kanam. ndax li muy centre si moom man man man ak yàlla dong noo xam loolu quoi mais dafa doomu aadama mënu xam fi ma toll fi ma ci ñaar fukki at ak ñeent bi mu àdduna ci atub 1999 am soxna soo xamante ne ginnaaw bi mu ko jëlee ak tey mi ngi toll rek ci juróom-benni weer kenn ci ñoom bu goroom la dellu si nag ci ay kàddu ak ay seede. xana xalé bu baax bu am yermande bo xamanteni ni baat yu nu waxante lepp sama yaay rek la may wax teral sama yaay rek mu gën ma neex ci jukkom ba barki dem ba nu waxtane lu yagga a waye xeyna li mo ya neex yalla soxnam si yamale wu ka wona dara bu faat febaré sax dootul amati jamm te gorgu am yermande la ndax goor bu bëggee yaayam rek am yërmande heure julli heure julli da kay wo fajar gi tank faatu jugul julli Do am jam. téléphone bi kar kar tank faatu jugul julli ba julli non. bam kay wo faatu di ni ki téléphone bi sone non kase bu paré munika julli nga ba pare munika wa ko waaw tisbaar timis non ge non am diine yalla na mottalee ndawam sa aljana ja ta am na si kar baax a ndax da doon aar réewam te ku sañul jur ka ndax jéeri man dama ko bëgg sama xol ndax kii bàyyam bam ko ñàkkee matul sax ñetti at tey xëy na yàlla moom mooy dogal mu ñëwaat am ay weer rek ngi daanuwaat ci kawam waaye lii moo neex yàlla sunu borom mhm. yàlla kenn du xëccoo moom yanu ni yalla may awaja di kenn ci jigeen ni jeri jallo am nakar ak tis yekati kaddu xamne rek jambar ji nga xamanteni daanu na ci tolu xare bi ana lan la doron ci mom tay sama càmmiñ la yaayam ak sama papa bokku nday ak bay waye sama keur la nekkon Dakar ndax kan tiaroy la nekkoon soxnaam si bam koy tak man la may premier njëkke sœur rek sœur ba yaru julité yërëm sama bajjan léppam léppam man la woon sam bàjje na ngi nii jéeri sañul toog ñaari fan yu mu yëkkatiwul téléphone am woo ma am diine am lislaam am yar am teggin sama doom ji ma mujjee jur feral ko àjjuma bi wallaahi jéeri ba may mujjee wax ak moom lam la ma laaj loo pour takkal ko xale bi ndax xale bi nduru gum ko nduru am yërmande li ay bàjjanam wax ëmb naa ba wasin jéeri mooy jóge camp ba ñëw di ma baleel sama appartement di fomp di tuuri mbalit soble sax barke alxuraan moom ma ko doon daggal ndax dama bañoon am sama yërmande bëgg yaayam bëgg jabaram ji am yermande am yar am teggin niki ni mer bi wax rek jéeri du won nitu fi barki alxuraan ku xam nit dëgg jéeri du xippi xol nit am yermande am yar am teggin bëgg ñëpp bëgg mbokk yalla na yeggalee ndawam aljana barke sayidina Muhammad <laughs> seede yi bari mbokk yi jege ñaale yi waaye dëkkaale yi kenn ku nekk yëkkati kaddu xamle rek ana moo doon Diery Diallo ci wàllu doom aadama waaye jege gi nga xamante ni jege woon na ko dëkkaale yi. ah sama fàttaliku bi metti na torop ndax ba muy dem bu mujj bii sama néeg la dugg ñu waxtaan waxtaan loo xam ne yaayam sax xamu ko papaam xamu ko de bàjjen rek la may wax macha allah. dama koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla xare àjjana su sedd si bàmmeelam xale bu baax bu yaru la bàjjen rekk xeexul xuloowul kenn su ko dégg mu xeex mu xuloo duñ koy ñaanal yàlla rek te yàlla na ko yàlla xare àjjana jéeri nag tey rek la ñu am lu naqari ci moom ndax jéeri ba mu xamee xàmmee ba léegi jàmm rek la xale bi am jéeri yërëm na ndeyam jéeri yërëm na nu ñun ñi dëkk ak ñun ñun bu ñu yëkkati woon bant boo yëkkati woon siwo ndox sax jéeri day dawe fii ñëw nangu siwo bi ñu la tànta bàyyil ma jël ma ma ma yëkkatil la ko jéeri amu fee kenn xaan ma yàlla mosoo koo dégg ci dara dara dara dara dara tey rek la ñu am lu ñu naqari si jéeri ñu koy ñaanal yàlla ndax yàlla kenn mënu xëccoog moom ñuy ñaan jéeri fa mu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na wàccu kaayam di àjjana ndax démb suñu bët bii gaa ngi nii nelawuñu fii kenn bëggatul dara dara dara démb mën na annoncé ni jéeri dee na kenn bëggatul dara sunu xol yi neexul mun ñu sax wax lu ñu bëgg a wax lépp ñoo ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare àjjana te yaayam ji yal na ko yàlla remplacé ndax yaayam sonn na trop ci moom man maa mën a man maa mën a wax yëpp ndax maa ngi moom ñoo bokk nekk ci kër gi mu sonn ci ay njabootam. ñëpp a ko bëgg ñëpp ak statut man sama njaboot su ma leen di woo sax ñu ne ma ñoo ma ko njëkk yëg xale yëpp ki estati góor jigéen mag ak ndaw ñëpp la jox cër ku mu rom mi ngi lay tàpp mu ngi lay reetaan man démb xale fii dama sax mujj nopp mënatuma jooy ndax koo wax yar na lu xoom ku mu bokkal ndey doomu ndeyam ulay jay mii doomu magam tantaam yii kenn du lim doomu bàjjan ñu daal démb dañuy yéemu ci yàlla xale yi kenn nelu man fii laa leen bàyyi deux heures du ñu toog ñoom ñëpp daal xale bi daal sans défaut xale bi daal dëdul woon nitu àddina daal defe naa ne ndax man xale boobu ni mu mel barewul ma gis ko ci ay xale de dem armée moo ko teqaleeg man toujours mi ngi may nemmeeku léegi mu ñëw ne ma mère waxal loo bëgg Dakar laa nekk léegi waxal loo bëgg ba loo ma jox rek baax bu ñuy daal di bokk xaalis jox xale yi. sama doom bu jigéen mu ne yow bala yow bala ma am lu ma neex dama lay may su ma amee jabar ma lay jox premier njëkke wala ma jox la deuxième mu jox sama doom ji deuxième njëkke heure boobu sama doom bi dañuy wootante ba minuit passé sama doom yëpp lay waxanteel kaf ak ñoom réew ak ñoom ne bu soobee yàlla maa ngi nii dinaa jël congé. bu ma ñëwee ñu def daal lépp def ma def benn benn kend bu mag ñeen ñëw ma ne ko soobee yàlla waaw ah, moom nag xale bu baax la li kiy wax rek ni am na doom daa ko jur ba am doo ko xam yàlla moo la ko jox mais doo xam fekk yàllaa ko moom fekk boo mokk ba mu jëm yàlla naka fa yàlla saxal yàlla naka yàlla yóbbu si àjjana ji kawe ñu ngi koy ñaanal nag xale bu baax la bëgg yaayam bëgg papaam bëgg ay rakkam bëgg ay bangam. ay ñaata waaye nag ndog li yàlla indi la kee mënu si dara dañuy delloo seen bopp si yàlla xale bi macha allah tabaar fakk àlla macha allah lii rek la wàlla yàlla dogloon ci moom yàlla na xippee àjjana yu doo siir jéeri nag xale bu ndaw la 24 ans la am yàlla ko yàlla xare àjjana yàlla na ko malaaka yërmaande teeru yàlla na taseeg malaaka yërmaande yàlla am na ko te yàlla mën na ko yàlla ko yàlla defal fu mu féete woon yaayam yàlla ko fa yàlla féete ak waajuram ñun ñii keroog bu amee premier soldam kenn kenn du ko waat yaa koñ biib lu war a séddale kenn du ko waat kon nag yaayam ji yàlla na ko defal lu baax ndax yaayam ji taxawaalugul ma ngay létt ma ngay def lu nekk pour ay njabootam jéer bu mu ñëwee jàppale ko njabootam jàppale ka kon nag fi nga ko féete woon yàlla na fa yàlla féete yàlla mooy am yàlla mooy def yàlla mooy may yàlla mooy yóbbu kon nag fi nga ko féete yàlla na fa yàlla féete yàlla am na te yàlla mën ko yàlla na ko defal ndax muñal na borom këram gii kon nag njabootam gii yàlla na yàlla li si li téye yàlla na yàlla barkeel yàlla si yàlla teg ndey jooram ak mbooloo mi jullit yàlla am na ko te yàlla mën na ko yàlla ko yàlla defal yàlla fi dund ba dund sàppi uf njabootam fi ko jéere féete woon yàlla ko yàlla féete si kàttanu sunu borom bi yàlla rek moo ko sañ yàlla moo ko am te yàlla moo ko def te yàlla moo def li kon nañu delloo suñu bopp si yàlla rek xam ne li mbiru yàlla la ñun ñëpp kenn xamul sa bopp dara yàlla na xippi de dasiir yàlla na ko malaaka yërëmbaale teeru si barke darajay bi si kàttanu yàlla xale bi ñëpp soxla woon macha nekk suñu mag ñu dëkk dëkk bu rafet mel ñoo bokk ndey ak baay dara masul ñaaw ulay man moo ma yar sama njaboot sax moo leen yar ku si boppam ràpp moo lay defar ba mu baax muy yaay jéeri ñu xam si moom lu bari noon ci sëy torop nag torop muñ lu ne ulay mën na muñ jàmbaare te mosoo dégg baatam man dama suma ko dégg te man moo ma yar ulay def na lu ñaaw walla wax nag masuma koo dégg masuñoo am si ulay lu ñu naqadi ak njabootam guleet si tey tey lañ ko am tey. xale bi moom suma turandoo la sama lépp la papaam la tamit yaa ngi may déglu ni mu ni mu ni mu féetee ko xale côté bu mu féetee woon mun ma ñu ma sax pour mun la ko war bu mu leer dafa baaxoon lépp yaru xam àdduna. jullite boole si bu ñëwee si koñ bi ñëpp ay moromam lañu man mi bi mu amee ñaar at la ma ko papaam may man la ko tuddee après may ma ko yaa ngi déglu lépp lu war dafa ko daan def si moom mu nekk ma xal bu nekk sama turandoo nekk sama doom yaru trop trop trop trop yaa ngi déglu ba ni ko jëlee dugal ko mu nekk militaire te bi mu nekkee militaire tamit waa fi mu nekkoon si camp bi foofu ñëpp dañ ko bëgg témoignage bi tey def nañ ko si aéroport capitaine bi ak lieutenant bi yëpp ak colonel bi ñoom ñëpp dañu approuvé ak xaritam ñi mu nekkaloon doon jooy ba sonn yaa ngi déglu àdduna nag noonu la parce que yàlla kenn du ko coog moom soxlaa moom. la nga xamante ni jéeri amoon na ko ci ay objectif moom moo di fexe ngir am lu mu sukkandikoo ci loo xamante ni day doon lu leew ngir nag mu gën a wuutu ay way juróom waaye tamit tey doxinu kër gi. ba muy tollu ci classe bu seconde ci la arrêté li di njangam ngir nak dem ci armée mu bok nak lo xamantene ne bëgg-bëggam la woon lool muy servir réew Sénégal loli kenn ci jégué ñaalé yi jégué way juram moom yëkëti yi lé kaddu ci ab léral atam dafa jéggi woon manam sax aase mom ci jëmi bopam ndax lan ndax mëna a teel fagaru am dara pour mëna difi ay wajuram motax mu né si bien que je suis animé donc champ intellectuel très très élargi mais nak lu mu ëppal solo moy ma cursuti ko ba mën am suma diplôme mën a jaar si armée benen voie de recours bo xam très tôt ndax ma mën am dara pour mën manam maanaam difi maanaam sumay waajur mu nekkoon nak lo xam objectif am la to te lu amoon solo la parce que ñun ñi ñoo ko quartier parce que moi je suis major de l'armée de l'air ma fa dugal mu ànd ak passion bu bëggoon ko tamit te loolu moo doon sacerdoce am nekkoon objectif am si bir loolu yalla yàlla dimbali ko si nu taxaw si ba loolu yëpp sotti ça ne fait même pas ça ne fait même pas six mois man ak papam ak turandoom ak nijaayam ñu noo dem takkali bu yàggul ni soxna fii dégg nga maam si maanaam si wàllu kon pour vous dire que moom bu mu ne amee soxna ak léegi sax yàggagul waaw kon passion am la armée parce que ku nekk si sa biir dund am na loo xam ne daanaka moom mooy sa sacerdoce mooy sa lépp parce que bëggoon na servir nation am fu mu ko mënoo mën a jaare mais si biir armée la ko waroon jaare mais loolu yëpp aussi pour mën a am benn sookul bu dëgër boo xam ne mën na si taxaw pour mën a teel a maanaam soutenir dégg nga maam ay waajur looloo taxoon mu dugg maanaam si bërëb boobu Jéeri Diallo daanu ca toolu xare ba di kenn nag ci doomi Ndar yi nga xamante ni ràññee nañ ko ci grade bi nga xamante ni am na ko mu di doomi réew mi tey yi doon xeexal réew Sénégal ngir nag jàmm ak kaaraange dellu si ci biir réew mi loolu nag moo ko daaneel ca toolu xare ba mu nekk koo xamante ne kaddu yi ak seede yi bari na lool ñenn ñi nag dem sax ba jox ko gratuite maanaam ku doon xare ci yoonu jàmm waaye yoonu diine ba daanu ca ñu jàpp rek ni xale la woon boo xamante ne nit ñi soppoon nañ ko lool waaye tamit amoon na taxawaay ci biir askanam rawatina gunge ay way juram gunge gunge soxnaam waaye ay goroom jege ñaali yi dëkkandoo yi kenn ku ci nekk di fàttaliku ndaw lu amoon fulla am fayda waaye tamit bokk jaboote te it bëgg ñëpp